salaamaaleykum mbokki déglukat yi nu ngi leen di nuyu ci turu yàlla aj dëgg ci bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral nuy santati yàlla ci li nu fi mën a teewaat di àddu ngeen di teewlu seen émission yoonu njub mbokk yi ñu déglu xam ngeen ne ba fi tey nu ngi wéy ci njàngum fukki ndigal yi yàlla dénk Musaa ak bànni Israël naka émission bi weesu nu ngi doon gëstu ci juróom ñetteelu ndigal li yàlla wax ci lu amul benn sikki sàkk bi mu ne bul sàcc naka noonu gisoon nanu ne sàcc lor sa moroom la te it càcc gu law day delloo gannaaw am réew kon ni nu tënke woon njàng mi weesu mooy sunu ragal yàlla ak sunu mbëggeel ci moom dafa war a àgg fu dootunu luubal sunu alalu moroom waaye nu koy dimbale sax ci ñoŋal ko yàlla bëggul kenn loru li mu bëgg ci ay gaayam mooy ku nekk wet moroomam sàmmale ko lépp lu mu moom te it kenn ku nekk daani dooleem doyloo li mu ko baaxe moo tax mbind mi sant taalibe yéesu yi ne ku daan sàcc na ko dëddu te jublu ci liggéey lu baax ci ay loxoom ngir mu mën a dimbale ñi néew doole tey jii nag xarit yu ñuy déglu danu fas yéene tàbbi ci juróom ñeenteelu ndigal li muy fi yàlla naan bul seede lu dul dëgg ci sa moroom seede mooy su mbir xewee nga nettali la nga ca gis mbaa la nga ca dégg naka seede lu dul dëgg nag moom mënees na koo dëppale ak ay fen ki koy def moom soxlawul sax dara di xew mën na xalaat mbir sos ko waxal kenn lu dul dëgg ngir rekk kooka loro ca naka ñiy seede lu dul dëgg yoonu àttekati àddina teg na leen ndaan gu ko jar waaye kàddug yàlla moo jëkk xamle ne kiy seede lu dul dëgg deesu ko ñàkk daan te moom kiy wax ay fen dina sànku yàlla dafay dànkaafu mbindeefam yi ñu moytu jëf ju ñaawe ni seede lu dul dëgg ci seeni moroom ndaxte li muy jural nit mooy sànku kon juróom ñeenteelu ndigal li dafay tekki ne danu war a ragal yàlla te bëgg ko ba nga xam ne dunu naafeq ci lenn di fenal sunu moroom dunu ko wor dunu ko jëw mbaa nu yàq deram waaye danu koy baal di ko waxal lu baax di fexe ba lépp lu nu koy waxal mu nekk ngëneel ci moom te lépp ëmb ci dëgg gi yàlla bëgg noonu mën nañu gis ne ndigal li dafay fësal ñaari fànn ci melokaanu yàlla bi ci jëkk moo di yàlla aji dëgg la fenn jegewu ko fenn li mbind mi wax moo di seytaane mooy fenkat bi te ci moom la fen soqi ko naka noonu képp kuy fen dëppoo na ak jikkoy seytaane moom moo fenoon sunuy maam aadama ak awa ca toolu àjjana ba ñu daanu ci bàkkaar te bàkkaar booboo nu tax a nekk tey jii ci jafe-jafe yi ngeen gis yépp seytaane nag soppikuwul ba tey mu ngiy nax nit ñi bañ rekk ñu jàppe fen ni ko yàlla jàppe looloo tax nit di fen ngir sàng sutura moroomam fen ndax kersa ak ñoom seen ñu naan sax fen wuy defar mbokk du fen waaye bu ñu gëmee loolu ba di ko jëfe nanu xam ne nu ngiy doxal tëralinu nit bàyyi bu yàlla mi aji dëgg ci te di xaar dëgg ci nun ci lépp nag yàlla wax na bu leer ne bul fen te déggal yàlla moo gën déggal nit ndaxte nit lu mu la mere mere du mën ci yow dara te fekk yàlla àndu ca bu nit ki demoon sax ba mën a faat sa bakkan falay yem moo tax mbind mi ne bu leen ragal ñu mën a rey yaram te mënuñoo rey ruu waaye ragal leen yàlla ki mën a sànk yaram ak ruu ca safara ci dëgg-dëgg fen wuy defar mbokk sudul fen ci nit ñi itam fenn la fa kanam yàlla ndaxte yàlla aji dëgg la te lépp luy samandaay aw fen mënu cee ànd loolu dafa wara a leer seede lu dul dëgg ci sa moroom fen la su nu ko defee ngir sàng sutura nit sax walla ngir wuta neex nit mbaalu ni mel lu bon la te mbind mi nee na fenkat yépp seeñ añ moo di déegu safara yàlla mënul dëkkandook benn bàkkaar sax te fen ak nu mu mën a tollu ak lu ko mën a sabab baakaar la fa kanam yàlla kon fànn bi jëkk bi ndigalu tey li di fësal ci melokaanu yàlla moo doon yàlla aji dëgg la te mënula tebbi ay waxam moo tax kàddu yàlla ne bàyyi leen di fenn tey wax dëgg kenn ku nekk ci moroomam ñaareelu fànn bi ndigal lii di fësal ci melokaanu yàlla moo di yàlla bëggul njubadi yàlla dafa jub te mënula teg ay bëtam ci njubadi te li wér mooy yàlla dina àtte nit ñi ci seen njubadi mu gaaw walla mu yéex mbind maa ngi koy wax sax naan merum yàllaa ngi feeñe asamaan wàcc ci nit ñi ndax seen njubadi gépp ñoom ñi suul dëgg gi di topp lu jubadi seen xol fees na ak njubadi njublaŋ ak yàq der li yàlla dige dina ko def lu mu yéex yéex ci xalaatu nit xanaa kay da leen a muñal ndax bëggul kenn alko waaye ñépp tuub seeni bàkkaar li ko dale ca njaalbeen ga la yàlla tàmbalee feeñal njubteem waaye nit ñi dëkk ci wone ne dox ci njuba de leen gënal topp njubteg yàlla wante yàlla noppiwul di feeñal ñàkk àndam ci doxalinu nit ñi wone na ay yooni yoon ne ko jub la te dina àtte gépp njubadi loolu lépp ngir nit ñi dëpp aw ci yoonu xéewal ak mujj gu rafet gi mu leen xalal ci dëgg yàlla bëggul bàkkaar te dafa koy àtte waaye terewul mu bëgg nit ba tax ci mujjug jamono yàlla yónni almasi bi yéesu ko jub ki ngir yàlla àtte ko ci palaasu nit ñépp mbind mi wax na ci mbirum yéesu mu sell mi ne yeesu kirist mësula def bàkkaar te jenn waxu njublaŋ mësula génn ci gémmiñam saaga nañu ko te fayuwul fitnaal nañu ko te tëkkoowul waaye mu dénk boppam ki yor àtte bu dëgg bi gàddu na moom ci boppam sunuy baakaar ca bant ba ñu ko daajoon ngir ñu tàggook baakaar bu ci dund gu jub ndax ay gaañu gaañoom may nañu ak wér ndaxte yéen a ngi réeroo ni xar waaye léegi dellu sa ngeen ci sàmm bi aar seeni xol noonu képp ku gëm yéesu almasi bi yàlla baal la say baakaar ci turam àtte la ni ku bi yàlla indee pexe moomook léegi mat na daanaka ñaari junni at am na ñu ko nangu ak woyof ci àddina sépp waaye ba tey li ëpp ci nit ñi bëgguñu ko nangu ndax seenuk rëy moona meneen pexem rëcc ci mbugalu bàkkaar ak njubadi amul artub yàlla nag moom amul benn sikki sàkka mu ne ñi dëgër bopp ba tanqam lu dëgg gi di topp lu juba di seen pay mooy dooni merum yàlla ak toroxte kon képp ku tànn bañ a aw ci pexe mi yàlla tëral yaa tànnal sa bopp yoonu safara te boog nuy wax dëgg di seedeel dëgg sunu moroom ci anam bu mu mën a doon ak lu nu ca mën a fekk ndaxte mooy li neex yàlla aji jub ji waaye nag nanu bàyyi xel ci ne loolu du mën a am ci kenn ci kaw kàttanu boppam boo jéemee su doxee tey it ëllëg du dox ndaxte nit dafa ñàkk doole ngir taxaw temm ci geñoo dëgg te sàngoo njub fu mu tollu li ko waral xam ngeen ko moo di baakaar bi dëkk ci doomu aadama moo tax borom bi yéesu ne seen xol jag na waaye seen binda mën nga nekk ku baax ci bëti nit ñi di yéene lu baax waaye du tax nga mën koy def foo tollu seytaane mooy jaare ci dooley bàkkaar bi nu donne ci maam aadama di nasaxal say mébét wante sama xarit yàlla bàyyi wunu nu toskare nde kon dootul nekk aji yërmande moo tax mu fàggul nu pexe mu nu mën a rawe ci pexey seytaane yi nga xam ne fen ci la bokk pexe mi am képp te yàlla fàggul nu ko moo di deretu yeesu kirist ja tuuru woon ba mu deewee ca bant ba fàttalikul li mbind mi wax ne peyug bàkkaar mooy dee te bu deret tuuruwul mbaalug bàkkaar du am noonu yéesu tuur na deretam dee ndax sunuy fen ak sunuy bàkkaar yépp ngir képp ku ko gëm yàlla baal la say bàkkaar loolu mooy xabaar bu baax bi mu dige woon jaare ko ci gémmiñu yonent yi ko daan yëgle ay junni junni at laata muy am moo tax kàddug yàlla ne yéesu kirist dee na ngir dind sunuy bàkkaar ni ko mbind mi tërale suul nañu ko mu dekki ca ñetteelu fan ba ni ko mbind mi tërale te mucc amul ci keneen ndaxte ci ron asamaan amul weneen tur wu ñu maye ci nit ñi wu nu war a mucce kon nag bu nit tawatee ab fajkat bindal ko garab bi koy faj bu amee garab bi ba noppi teg ko ci taabalam di ko xool ana lan la ko garab biy jëriñ tus la jëriñ lii tax garab bi mën koo jëriñ daal mooy mu jëfandikoo ko na ko noonu itam feebar bi yées ci nit moo di bàkkaar ndax safara la ko jëme ci lu wóor waaye garab bi nit soxla ngir bañ a taseet mbugalu bàkkaar moo di yéesu kirist mi nu deewal ca bant ba ci saraxu yéesu almasi bi la yàlla jaare wone bu leer ne ku jub la te baax te dafa mbugal sunu bàkkaar waaye mu baal nu nun bàkkaarkat yi te ba tey dëkk ci njubteem yeesooy ki amal misaali saraxi mala yi yàlla santaane woon ca jamono yu jëkk ya moom kepp la yonent yépp seedeel nañu ko ne ku ko gëm yàlla dina la baal say baakaar ci turam yeesu almasi bi rekk moo la mën a def ku wér ci say wax ak ci say mébét maanaam nga nekk nit ku dundam di meññ jëf yu baax yi yàlla naw moo tax yeesu mënoon wax naan ñëw leen ci man yéen ñépp dinaa leen may nooflaay jébbalu leen ci man te jàng ci man ndaxte lewat naa te woyof te dingeen am nooflaay ci seen xol ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku dégg sama kàddu te gëm ki ma yónni am nga dund gu dul jeex te doo jaar ca àtte ba ndaxte génn nga ci dee tàbbi ci dund ndaxte ci yiwu yàlla ngeen mucce ci kaw ngëm te loolu jógewul ci yéen mayuk yàlla la du payu jëf ngir kenn du ci kañu kon yow miy déglu te am jafe-jafe ak bépp xeetu fen boo ci bëggee génn jëkkal a gëm yéesu lu ko mooy dangay sonal sa bopp ci jéem ak a jéemaat waaye dara du sotti pexe mi ngir génn ci këpptalu seytaane bii di fen moo di nga jébbal sa dund yeesu bu la soxalee na jëkk a xam ne yàlla aji dëgg la te mënul dëkkandoo ak fen dafa sell ba ay gëtam mënuñu tegu ci dara lu sellul moo tax muy sàkku sellaay gu mat sëkk ci bépp nit nga xam itam te nangu ne nit ku mu mën a doon fenkat la bàkkaarkat la ba tax na amul jenn jëf juy jóge ci nit ju ko mën a musal ci safara waaye yàlla sàkk na pexe mu ko nit mën a jege mooy pexem deewu yéesu Kirist mi mësula def bàkkaar te jenn waxu njublaŋ mësula génn ci gémmiñam moom tuur na deretam ca bant ba ngir fayal la sa mbugaluk baakaar noonu soo nangoo sa melow baakaar fa kanam yàlla te nga gëm na yéesu dee na te dekki ngir fayal la sa boru baakaar bi la jëme woon ci safara yàlla dina la baal say baakaar te ràng la njubte kirist naka noonu dinga nekk mbindeef mu bees te yàlla dina soppi sa xol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 su ngeen bëggee ay leeral ci lu nu jàng tey bind leen ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis na leen yàlla barkeel te ngeen bàyyi xel ci li mbind mi wax ne bu leen dundee ti ni xeeti àddina yi ci seen xalaati neen ak seen xel mu lëndëm bàyyi leen di fenn tey wax dëgg kenn ku nekk ci moroomam